le patriotisme. Il avait bien compris que la solidarité en islam commençait par l'aide à son prochain, le partage des connaissances acquises. Ces connaissances étaient appréciées, même en dehors du pays. Il était sollicité partout, y compris dans des pays comme l'Arabie saoudite, le Maroc, la Mauritanie les États-Unis, la France, etc. En 1965, il avait prononcé à la Mecque un discours mémorable au Congrès islamique de la Mecque. El Hadj Abdulaziz Sy était également un agriculteur qui exploitait plusieurs domaines agricoles. Il était très souvent à Diaksao. En effet, il avait très tôt compris les enseignements de son père qui avait fait de la culture de la terre et du commerce son métier, ce qui a valu à la médaille agricole décernée en 1955 par le colonisateur. Par ailleurs, de par sa réputation de poète et de chanteur à la voix d'or, il a dirigé le cœur des disciples durant les nuits de Maouloud sous la direction de Seydi Ababakar Sir de Lautala Anho, premier calife de Maoudo. Il a d'ailleurs maintenu la dynamique en dirigeant personnellement aussi bien les séances de bourde que le Maouloud jusqu'au dernier gamou qui a précédé de quelques mois son rappel à Dieu. wa nafsi wa ashaabi wa du nasabin fi hifzi rabbika ya hirzi wa ya wazari. Mame Abdoul n'écartait jamais un moyen de donner une leçon aux hommes politiques. Ce septembre 2017, ans après sa disparition, coïncide également avec la rentrée des députés. Il avait même lancé un message. su ñu leen présenté lu ngeen ware wote na ngeen ko seet. waaye waay bu ñu nee tee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko. lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple. waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi. ak lu mu leen di jural amaam Allah yàlla. ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teewee. Après 40 ans au service de l'islam et de la tariqa, Serigne Abdoul s'en est allé sur la pointe des pieds. 40 ans, zéro faute. Comme le disent certains, c'est cet homme hors pair à tout point de vue que le Sénégal et la Oumma islamique continuent à pleurer des larmes qui ne sécheront jamais. leen di wax ne man mi wax ak yéen ñi déglu nañu fab loolu def ko suñu kanam xam ne bés bi kenn ku nekk mi ngi la nit te xamuloo ni koy dikkee lan la ñu xam ci biir Lamine ci mu nekk léegi ku ci xam dara ya yaakaar ak njort rek ngeen am ci moom ci kan la ñu